lim ay responsable ma commencé ci jigéen ñi ku ci mel ni Nogoy Diop nga xam ni mi ngi fi taxaw taxawaay bu am solo di jiite jigéen ñi di ci tudd Ousmane mbay di responsable bu mag a mag di ci liggéey liggéey bu am solo di ci tudd ku mel ni Ibasi di ci liggéey liggéey bu am solo ñoom Ibou Laye mbay ñoom Modou Sall ñoom Alioune Guèye ñoom Pape Dieye ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen vraiment su ma limee damay juum ak ñëpp ñi nga xam ni taxaw nañu di massifier parti bi fii ci biir Cité Lamy lii wane na ni waa Cité Lamy tey jóg nañu taxaw pour jëmale seen gox kanam te lenn rek mooy mën a jëm jëmale gox bi kanam ñun ñëpp ñu ànd jàppante ànd ak le ministère nu Alassane Sall mu ànd ak président de la République ñu soppi Cité damay wax ka ni tey jot na jot na ñu jël cees jox ko teg ko ci loxoy ministère nu Alassane Sall jot nañu changer dëkk bi bu élection jotatee ngir yàlla nañ leen jóg ñun ñëpp dem voteel ko moom ak le président de la république ñu mën a jël mairie bi pour mën a liggéey Sénégal mën a liggéey Thiès gi nga xam ne fi lañu ñu dëkk loolu rek moo ñu ci génne ñi fi ne ci mairie bi ñun ñëpp gis nañ ni ñu négligé ni ñu sàggane gox bi di cees ku mel ni Thierno Alassane Sall di doomu Thiès juddoo fi yaroo fi màgge fi lu mu am Thiès la ko indi du toog benn week te ñëwul cees koñ bu nekk mu ngi fay dugg gox bu ne mi ngi fay dugg mi ngi nemmeeku ñëpp di xool ñëpp waay waay kooku ku ko am war nga gëm ni kii liggéey rek a ko ñor leket yi ñu gis fii ci suñu tournée bi biir Cité Lamy wane na lépp lim fi def ci ay leket kenn xamul nu mu toll di dimbale groupement wu femmes yi làmp yi ngeen di gis muy tàkk Cité Lamy nii ñëpp ci teg bët lamp yi may changé nii moom mii la li ngeen di gis làmp yi di tàkk yi yéen ñëpp teg ngeen ci seen bët ñi ma dëkkal làmp yëpp moom moo ma ko jox pour ma changé ko def naa ko fii def ko ci biir Cité Lamy fële te dinañ ko def feneen ak feneen ak feneen kon kooku fàttewul waa sitale mi fàttewul à Thiès waa Thiès def fi liggéey yu am solo lu mel ni ay tali boo demee Cité Malick Sy Parcelles Jaxaaw euh, tali boobu ñëpp gis nañu ni mu meloon euh, dimbale na aussi jàkka yi dimbale jumaa yi muré na euh, cimetière yi am na cimetière yoo xam ni moo ko clôturé dimbale néew ju doole yi amul tabaski amul korité ak tamxarit lépp lu ma mën mi ngi koy dimbale doomu aadama yi donc ci gàttal rek loolu laa amoon lu ma ci sànni euh, di santaat waa Cité bu baax di leen wax ni vraiment gis nañu seen taxawaay ci ginnaawu ministre Thierno Alassane Sall ci jàppale bi nga xam ne yéen a ñu koy jàppale di remercier monsieur le ministre encore vraiment ci ñëw bi nga xam ne ñëw na ko sitalami Lamy na ni vraiment moom ak waa sitalami ñooy ànd ba faw donc maa ngi leen di sant di leen gërëm maa ngi sant nag sama soxna yi xam naa su ma ko deful dinañ ma mere su ma duggee fii am problème waaw ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant ceeb yu neex lañu fi toog vraiment sant yàlla maa ngi leen di sant di leen gën ak délégation yi nga xam ne àndoon nag ñoom ci tournée bi mënuma lim limoon naa leen sànq ak hôtesse yi toog les jeunes la monsieur le ministre ñi ñëpp ñun la ñuy jàppale vraiment ñu ngi leen di sant leen gërëm di sant